عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق Cerno ah, mu ngi dëkk Fuuta mu ngi dëkk juddoo ci dëkk bu ñuy wax Sinthiou Sinthiou Dante foofu la juddoo mu ngi bokk ci xeet bi ñuy wax xale yi xale ba mooy euh, tukulóor yi nga xam ne moom ñoom la ñuy wax tooroodo nga xam ne dañoo jàng alquran jàng xam-xam ñu respecté leen bu baax daal ci fiñ dëkk Cerno nag ñu xam dina xam yaayam ci soxna Farmata Buyal Kenni ñoom ay sëriñ mag la ba léegi ñi dañoo am ziyaara boo demee léegi euh, kii euh, saarandoobu dañ ko fekk seen ziyaara ñu koy def foofu noonu daf di wax Sara Mbow waaw ndax euh, Faatumata Kelly Buyal Kelly moo ko jur Buyal Kelly Tafsir Omar Kelly moo ko jur Tafsir Kelly borom xam-xam bu mag la woon Sénégal yëpp xam leen ci ëmpale Tafsir Omar Kelly bëriwul ndax dafa bëri sancoon dëkk bi ñuy wax Ndor Mbos waaw moom amoon na sax jabari jinne Tafsir Omar Kelly ndax daf naa def bu sancee rek ñu lakk dëkk bi ba benn bés yi na ko tafsiru Omar Gueye nii soo bëggee dëkk ak ñun da ngay takk ci ñun moo tax moom amoon na jabar ji ne borom mbir mag la foofu la yaayam boobu ci wàllu baayam moom xamul baayam ci hmm. baayam génn at ñaari at la am moom ci baayam Mouhamad la tudd Mouhamad Dem Mouhamad Dem moomu nag amoon na ñeent doom yu góor Cerno seex la hmm. seexam bi mu ngi tuddee mu ngi tudd moom use la Assane la ak Ousseynou ak Moussa ak Aliou Mouhamad moom nag jigéen bu ñu wax euh, Ndey faatim moom la takkoon ci Ndar olof waaw olof la woon yaay Thierno mooy tukulóor bi mooy Haalpulaar bi waaye kooku moom olof la woon Ndey Fatim lañ ko mën a dégg moo jur Aliou pour Moussa léegi nag euh, bàyyam moomu dafa jóge fii daal di dem mu ngi dem ubbi yaay Thierno boutique ci ci Fouta tàggu ko moom dafa war a dem Ghana Ghana hmm. seet ci euh, rakkam bu ñu wax Bara Bara dem ñi jàng français hmm. xam ne histoire yi Bara Amadou dem danañ leen koy jàngal Bara dem moom moo bàyyi Thierno ñoo bokk ndey ak baay moo nekkoon Burkina Faso nga xam ne daf loo rey muus yi ba demoo leen ba bañ bëgg koo fal buur ci Burkina mu ne man affaire buur itteelu ma doomam bu juddu la mu yóbbu ko Fuuta mu dem jàngi alxuraan gannaaw gi nag mu déménagé daal di dem Ghana moo juróon Amadou Bara Amadou Bara mi ngi ngeen yaayam ca histoire da moo xeexoon nag jësit ji baray ko hmm. Bara moomu moo ko jur moo bàyyi Cerno ñoo bokk ndey ak baay seen baay Samba la tudd ñaar Samba à la tànk bi dafa rëyoon ko kenn mënu koo amal daan hmm. kooku général yi Cheikh Umar Fouti yi la woon daan ànd ak Cheikh Umar di Fouti di xeex di xare di jihaad waaw ngeen bu waraan fas tànk yi day yor mu àgg ci kaw kooku nag Aliou Deme bi ko jóg Aliou Deme moom moo sanc daara xale bi moom nag ci la leneen ñi bokk sax waa waa waa suukoon yi mooy seen maam mu ngi mel rek ñu ne maam Alaaji Abdoulaye Niass ba yor suuf ba ba nga dem ba ci waa ñoom ak waa moom moo doon kii ñu nekk ay ci wàllu yaayam ci wàllu baayam yëpp dañ koy topp Cerno waaw demee léegi génn léegi rek dox léegi rek jëm yooni Fuuta soo àggee Kaneel ba ba ngay àggee Saara Nduugu foo laajte Cerno Xasan rek ñu ne la xaw lay ni kaar lay ni waaw dañ leen topp waaye nag gisul loolu moom Cerno boole yëpp moom xoolul loolu gisul loolu dégg nga dafa ñëw rek topp Cheikh Ibrahim ba mu toppee Cheikh Ibrahim ba léegi nag gees wut waaw dafa ñëw rek toog dafay jaaxal nag mbokkam yi sax ndax ci askan wi bokk ak dañ leen di di leen topp Thierno ñëw topp waaye Thierno moom xam na ki mu na ay mbokkam yoo xam ne sax dañ ko daan ay baat naan ko amoo kenn koy topp mu leen sama jolfo bi maa ngi sant yàlla ndax bu ba léegi bés nekk dinaa yëg yokku. waaw mm-hmm. ah, ah, bu ah, allah alhamdulilah ñu ngi lay gërëm baax la sant mm-hmm. ñaan yàlla mu guddal seen fan yéen ñëpp may leen wër lii ngeen xam yéen a ko ci wuutu yàlla dimbali leen ci ngeen eggal émission bi ci barke Cheikh Ibrahim kontaan nañ baax ci émission bi macha allah jërëjëf Seyda salaatullahi thumma